ci turu sëriñ bi ñu ngi nuyu mbokku taal yi di leen sant di leen ci li weesu rek di leen soññ ci seetal te xam ne li am solo rek mooy liggéey sëriñ bi ndax wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun suñu borom dafa wax ne bindu ma nit yi jinne ñu jàmm liggéey sëriñ Tuubaa rek ci jàmm loolu alxuraan jublu fu bare bare yéen nag di waa Touba Ca Kanam seen mandarga bi gën a rëy mooy jaayante dëgg dëgg liggéey si biir kon ñu ngi sant sëriñ bi mu Fari ndax ni ko suñu ëmb ndax ak waxe moo war a teewaayu gàtt ak gàllankoor moo tax waaye suñu ëmb ndax teew man mii itam fu ma teewoon mën naa ko waxee fu teewoon ma ma teew ci ñaari fan yii xam ngeen ko gën jëw ngeen si waat kon ñu koy sant mooy itam di ko gërëm di ko ñaan ci barke Sëriñ Tuuba ni ma ko daa si rek bëgg bu dem yitte fépp génn bi ci Sëriñ Tuuba yàlla na ko ci suñu ko dénk Sëriñ Tuuba kat ko ko kon àgg ci fi jëm kaw kon jëm kaw di ñu ko suñu yàlla moom ñii tam di ko sant bu baax di ko gërëm li ma seeral si laa am tuuti mooy yitte aussi ak boobu aussi ba moo tax ñu koy ñaanal yàlla dindi ko kon moo tax ni mu àndee seen réew de sëriñ Abdou Lahad Mbacké daa wax ci liggéeyu seen xar moo tax seen liggéey bokk ko ëllëg kon yàlla yàlla dëgëral seen am bi yéen waa yëpp ndax ba ngeen sosoo yëpp ci mu ngeen laaj ko mu nekk mu jox leen ko ngeen tàmbali ko waaye at bu jot muy gën a yokk ngir yàlla Serigne Saliou Bakar rek daa wax ne lépp loo yëkkati boo ko xoolee daal yi ñoom war a xam ne Serigne ma la ko kon nag ñu na seen xel daal seen jox ko xel te ngeen jëm ma la ko la ca des rek mooy ne kulli ila shukri wala xaajat wala kenn xasisu ngir jaay ko juum jëm ci lu baax yow na waaye li def nag mooy fexe ba sax kon nag yàlla na leen yàlla ba di leen Cheikh Mawal xaaral loolu wax dëgg na ngeen na ngeen àgg fi ngeen ñëw te dara bu leen bu leen dara ndegam moo fi nekk ni moom bu nekk si tubaab rek yéene na leen ñaanal leen ba seen xel bu baax waaye nag ngeen gën a góorgóorlu ndax cant yi ak yeneen yi ngeen sëriñ yi ndax Cheikh Mawal xaaral xam ngeen ne tubaab ci kanam ngërëm ak liggéeyam ak dayoo ci ndigal bi tam ngeen jox ndax bu ngeen sant ngeen def ko te mosu leen def dara lu ngeen ndax li ma leen ko daal si rek ñi fi jaar bari na ndax adduna yi fëkkaat def ko ndax saa soo liggéey jëm ci lu baax rek boo doxee tuuti rek saytaane jéem ko yi sowale la mu seytaane di jaxas xel di yàq wala mu dugal ci biir loo xam ne bokk ci woon waaye mel na ne seen tubaab yi ci ndax ba ngeen tàmbali daayira ñu ko sos dama leen waxoon ne leen daayira yi fi jub dem ba kawe ba ci ak gàllankoor am ci yaa ko koy adduna dugg ci wala mbirum adduna dugg ci mbirum adduna mooy politique kon loolu yàlla dugg leen ci ndax li ko wax war a def juróom waaye kenn mosu leen dégg tàmbali ci Sëriñ Tuubaa yow Sëriñ Tuubaa loolu na ngeen xam ne mooy seen jiitaay mooy seen kaaraange ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax ne Sëriñ Tuubaa yu fekk saa kon seen daayira bi ni mu sosoo ba agsi fii bu leen ko xeex réy na ndax daayira bu sosoo mot ëpp bu tuyoon ak dajale ay liggéey loolu kenn mosu ko dégg bu leen ay yaay yu jiwu bu leen adduna jiwu loolu yàlla ne ci jiwu rek li tax sama xel la tere mooy yeneen seen kanam kon jiw yi jiw yi nag mooy dafa solo ci ab tool Cheikh Issa Diagne dana wax ne jiw yi bu jiitoo bu doxee lépp dox kon nag nga seetal ndax jiw yi yi ngeen toog seen yàlla ndax sëriñ Abdou Lahad Mbacké am na lu mu tëraloon ci biir yoon ba mu koy leeral ñëpp xamul dana gën da ci am ñoo xam ne dañuy joxe doxe mu gaynde am ci ñuy joxe doxe ni mukki mu ne gaynde nag bu toppee ci ginnaaw mukki bu yàggee aw doxe ni nii kon topp da ngay xool bu baax te a góorgóorlu bu baax yoon wi nga xam ne sóobu ngeen te fu mu rek mu dugg dugg ñu bëgg ko gàllankoor wàllu moom ndax dañoo choisir mbir mi dafa am ne jéewale gis na gis naa leen yow yow fu mu ko jógee rek waaye seytaan Sëriñ Tuubaa waxul seytaan shayatin la wa kazaalika ja'alnaa li kulli nabiyyin aduwwan shayaatiina al-insi wal jinni yuuhaa ba'duhum da ngay dégg man xatal xatal xatal fil bahri seytaan am na fu mu koy wax bëri kon ay seytaan yu bëri nag kon seytaane bu dee rek am na yeneen yu jubluwaat kon nag li am solo rek mooy dëgmal Serigne Touba ngeen xam ne Serigne Touba bu doxul dara moo ko garanti ndax la nga waxoon ne innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun mbirum Serigne Touba yi yoon bi yoon la def Serigne Touba am na ko ci moo garanti moo ko xam moo ko aar bu ngeen déggee rek may bàyyi loo xel fi ngeen jëm da ngeen jëm fu sori te fa ngeen jëm gëm naa ne dara mun leen fàtte dara mun leen fàtte ak ndax jekk nag adduna noonu la baaxoo aay yi suñ doon sedd ji doon jàng rek sëriñ sëriñ yow sëriñ Bachir Moussa Moussa وممن حولهم من a المنافقون ومن a المدينة مرضوا على النفاق laa ta'lamuhum nahnu na'lamuhum loolu mosu fi ji waaye mënut a yàq nag ndax mission bi da ko tax a jóg dara mënu ko te àgg te seen mission bii li ma dégg Cheikh Mamadou Mountakha seere ko ci biir seere ko ci biti dara mënu ko gàllankoor dana àgg fa fu jëm te dara ko waaye nag cant bi li muy rëy rëy def leen ko la xasaar ngir xam ne yoon bi kenn ak Cheikh Ibrahima Faty saa su ko Sëriñ Tuubaa ma saan wàcc ci bëgg a ci liggéey mu ne ko Mbàkke yaa ma njëkk a ci liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te wàcce lu ma dëgg kon ni fii wàcce woon moo wàcc kon na ngeen xam liggéey Sëriñ Tuubaa amul wàcc liggéey bu jeex rek saa tuubaat te ngeen xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa mooy li am solo ci àdduna mooy li am solo ci àllaaxira ndax ni ma koy faral di fàttali Sëriñ Mbàkke Moussa daal di wax ne yi ma umpule ñaar bokk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ji saw ñaq dana joxe barke jox ko sa alal daan loolu wus kon na ngeen xam ne liggéey jox Sëñ Tuubaa muy seen ñaar téeméer yi ndigalu Sëñ Tuubaa waaye la suñu kilifa bu baax waxoon rek misaal moom ngeen doxe s sëñ Abdoulaye Mbacke rek waxoon boo yoree kooku ndox te bëgg sang bëgg a jàpp bëgg a dund da fekk borom géej nga jël sa koo ndox la sotti biir nee na kenn mënatu kenn mënatu li ca génn kon seen ñaati mbir yi ngeen di jël di ko dugal ci liggéey na ngeen xam ne mën naa am tuyaaba yi ku am ku joxe milliard ndax jëfi jëfi milliard kon loolu yoonu noonu la sosoo waxoon na ci waxtaan mu mujj mooy bi ngeen di dégg ñu wax xutbatu moom sasin yéene ngi jëm ci jamono joo xam ne yéey cee taxawut noppi jekk jaamu yàlla nangu liggéey doy loola nga am loolu la kon na ci ñëpp gën a bàyyi xel gën koo sàmmante ngir xam ne jamono fi mu toll xat na waaye buñ góorgóorloo te sàmmante li nga xam mooy ndiggale suñu tubaay bàyyi ay teram fexe yi xam ne ni moo ko waxee rek képp ku jóg ngir jëm ci lu baax rek seetaan dana jóg ngir gàllankoor waaye bu sa ko séet doo woo ci Sëñ Tuubaa sa bëgg wér sa cofeel wér boobaa Sëñ Tuubaa moo lay xam ne ñi fi ñi ci ëpp seeni maam yi dañoo ci jamono ju xat dund lu mett waaye ak dogu ak bëgg Sëriñ Tuubaa ak xam tax a àgg fa moo leen tax a am ngërëmu Sëriñ Tuubaa te ngërëmu Sëriñ si it mooy ngërëmu yàlla te war bi waar bu mel ne loolu mooy li ñuy sàkku ci adduna ak àllaaxira